éliminé euh, euh, gañe mooy am yaakaar match nul dafay xaw a doy waar voilà ñetti euh, résultats yi nga xam ne wax nañ leen tey jii sunu gaynde yi dañuy delluwaat rek ci conférence de presse su Aliou Cissé démb moom nag mu ngi xamal ne que dina nekk match boo xam ne ñoom gagné rek ñoom noonu lañ ko waxee Aliou Cissé nee na rek gagné voilà te wax na dëgg il faut que ñoom ñu gagné pour mun a des ci li nga xam ne euh, moom mooy euh, mbir mi gis nga euh, donc nag loolu moom mooy li nga xam ne moom moo am ci li nga xam ne li nag moom mooy jongante boobu di am ci loolu léegi nag équipe bi nag macha allah Ballo ba léegi mu ngi ci entraîner individuellement est-ce que Ballo Touré day duggaat waaw wala déet xamuñu. Euh, dégg nga euh, mais li wóor ba wóor mooy Abdou Diallo rejoindre na bi ñoom ñëpp rejoindre nañu groupe bi kon nag euh, Cheikhou Kouyaté rek moo dul joué tey jii ci jongante boobu kon nag Aliou Cissé pour gagner ba léegi li ñu waxoon ba léegi moo ci nekk mooy 4 2 3 1 dégg nga voilà. <laughs> Ah, gis nga ñoom ah, ah. ah waaw <laughs> gis nga ñoom Argentine dañ leen gagné premier match gis nga leen ñoom ni ñuy def gis nga ku ñëw rek wane sa bopp ñoom dañ leen gagné woon premier match ñoom tam seen deuxième match dana nekk loo xam ne lu metti loolu lay doon euh, état d'esprit boobu euh, la sunu gaynde yi euh, di amee match match bi nag lenn kese la mooy pays organisateur bi booy xoolaat ñoom ñëpp dañ ko gëm lan moo tax ñu gëm ko li Arabie Saoudite dóor Argentine moo tax ñoom ñu gëm ko booy xool fii Qatar yi euh, euh, fii euh, ñoom ñëpp boo leen di laaj dañ leen naan non comme que Arabie Saoudite def na ko ci Argentine ak Messi bu mag bi dégg nga kon nag ñoom mën nañ ko def moom mooy gagné li nga xam ne moom mooy Sénégal ñoom loolu lañ ko jàppee kon nag <laughs> suba et puis bu ñu fàtte ne que asi euh, que kii euh, Qatar moom mooy champion d'Asie euh, waaw buñ ko fàtte mooy champion d'Asie et ñu xoolaat tamit maanaam deuxième période am contre Équateur dañ kaa dóor mais yooyu yëpp dañ ko gérer gérer nañu match boobu dañ leen mën a 2-0 après ñu gérer ko kon nag mu ngi noonu daf ci am ay paramètres yoo xam ne yu bëre la on est en coupe du monde gis ngeen coupe du monde bii man ni ma ko jàppee leneen la. Qatar euh, ni mu amee coupe du monde bi umpul kenn kon nag kuy joué ak moom na moytu dama naa ne wax ngeen comprendre man fi may waxee kuy joué ak moom war nañu moytu sunu joueurs yi nañu moytu téye seen loxo téye seen tànk moytu waaw parce que dafa doy waar daal dafa doy waar loolu daal man sama xalaat foofu la jëm kon nag mu ngi noonu il faut que la ñu ñu jéem a xool euh, mbir mi. Euh, nu muy demee kon nag li ma euh, décor baa ngi noonu campé naa ko defe naa ne le match sera un match important pour le Sénégal l'avenir du Sénégal des Lions du Sénégal ci coupe du monde bi mu ngi ni bii la kon nag euh, il faut que ñu xam ne que match boobu match bu am solo bo composition équipe bi nag ñëpp ñu ngi jàpp ne ñëpp ñëpp ñu ngi jàpp ne que du am parce que Aliou Cissé laaj nañ ko ci changement yi nee na euh, bugg cee wax nee na sama onze du ma ko wax loolu la wax démb euh, conférence de presse du ma wax sama onze bi du ma ci wax tey du ma ci wax ëllëg ñu insister mba sax mu ne du ci wax voilà bon am na ci droit am du ci du wax onze am mais am na ñu xalaat ne ke euh, dina am ay changement parce que nit si loolu lañ koy laaj ndax dina am ay changement dégg nga attaque bi kan ak kan lay est-ce que attaque bi joué contre équipe bii di Euh, Hollande moom mooy ñëwaat équipe boobu départ est-ce que euh, dégg nga euh, maanaam Abdou Abdou Diallo day dem à gauche ñu defaat défense boobu ñu defoon bon loolu yëpp bugg cee wax mais jàpp nañ ne noo def leen dina am. voilà ah, Ecuador. ah champion of the world. Équateur. Équateur. Ecuador. Eh. Ecuador. Eh, Champion. Champion of the world. Sénégal. Sénégal. Sénégal. voilà, donc... Ah, ah, Algérie. Ah, vous connaissez le Sénégal. Elle est forte. On a, pu gagner le match. On a pu, malheureusement, malheureusement, je pense que, euh, c'est-à-dire l'absence du Mané, euh, a fait euh, un peu les pour nous. Mm-hmm. D'accord Nous, les Sénégalais, parce que je suis africain, je suis algérien, je suis venu pour supporter l'Afrique. Le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, le Maroc, la Tunisie. D'accord. Okay. Euh, mais l'équipe du Qatar, vous êtes. Euh, mais, mais, mais, comment vous voyez le Sénégal avec le Qatar jouer contre le pays Qu'est-ce que les Sénégalais, qu'est-ce qu que les Lions doivent faire En tout cas, elles doivent jouer le plus normalement. Et je pense que le Sénégal est plus fort. D'accord, je pense que le Sénégal plus fort. Même, même contre la Hollande, elle était plus, elle, euh, elle était plus fort. D'accord. D'accord. Merci. Avec un peu de chance, on peut aller loin. D'accord, merci. <laughs> D'accord, voilà. Donc nag mu ngi noonu décor baa ngi noonu kon nag loolu lañ leen indiloon ñu xaar rek ngoon pour matt bi kon nag waa plateau bi mu ngi noonu. ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Cheikh Ahmed Tidiane Gomis hmm. foofee ca Qatar mais nag euh, alxayri est-ce que Qatar en tant que pays bi nga xam ne ni tey jii moom moo organisé est-ce que dina nangu tay mu am defet maanaam dem toog bàyyi ñi mu dalal ñu nekk di dellu. waaw bu doon <laughs> par exemple <laughs> lenn li nga xamante dañ koy teg mais lii football la terrain la terrain foofu lay foofu lay leeree bu dee ci wàllum lépp lu wër football moom. Ah, peut-être mën nañoo ne mën na mënul <laughs> mën naa nangoo la mais fii ci biir terrain la. te ja te waaye effectivement du yomb kay ma ñu ngi ko doon wax sànq ci laa interpellé Koundoul nga foog ne tey lan moo war a doon clé du match pour ñu génnee ci parce que eh, sous pression bi après dinañ ñëw l' environnement man j'ai pas apprécié ay ministre di wóor ay eh, kiiw chef eh, message chef de l' état affaire yi tu ne dans aucune dans aucune équipe ci biir foofu ñuy ñëw di wóor ay message chef de l' état la ñuy andi ay yooyu noonu nga ko d' abord ñu concentré ci football bi lan moo war a doon clé bi tey waaw euh, merci Aïdara xam nga Sénégal def na première sortie hmm. euh, ñu gañe ñu 2 buts à 0. Hmm. mais ki ñu gagné euh, bu ñu fàtte ni Hollande nekk na trois fois finaliste mondial. effectivement hmm. ñun soo xoolee. bi ñu 2017 2017 ci mujj. bu moo ci mujj. ñun outsider lañ ñëwee. mais xam nga dañu def ay erreur yu monumentale ci match passé bi. surtout en deuxième mi-temps. et je pense bien que on a pris note. léegi du coup match bi ñuy joué tey. day nekk match boo xam ne de un adversaire mooy pays organisateur. de de léegi mi ngi commencé di nangu naan moom mooy champion d'Asie. Mm. entrain dikkewul woon noonu. te comme ni ñu ko ñëpp xamee xam ñoom seen football lépp ñoom il il mise sur ce appelle les attaques placées mooy conservation de la balle. Mm-hmm. di jouer ci espace yi. mais keroog dañoo ñëw joueur équateur yi xañ leen ko. indil leen vivacité bu gaaw mais nag ak un pressing haut soo xoolee keroog Qatar xam nga ñoom il joue di 5 mais soo xoolee kata euh, joueur Équateur dañ leen di presse ba ci kaw en cas de perte de balle rek bii day am njëkk na bii am VAR annulé ko bii am bii amaat léegi ñun tey bu ñuy jouer ak ñoom ñun il faut que ñu xaw a jouer tuuti comme joueur Équateur yi nu ñu jouer mooy ñu bañ leen a bàyyi ñuy jël temps wu construire. Mm-hmm. parce que bu ñu construire rek après confiance bi dafay ñëw te avec le le douzième homme ça va poser problème. Mm-hmm. te comme ni ko Cheikh Tidiane Gomis waxee léegi pays organisateur la. VAR mën na gis sax sëgg démb gis nañ exemple bi ci ci Portugal li gën a euh, am solo mooy ñu prudent ci prudence boobu nag dafay commencer ci ci ci staff bi d'abord ci choix yi bu ñu déglu sénégalais yi bu ñu gañawul dañuy ñibbi ñun même un point quali toowuñ xam nga football aussi dafay am foo xam da ngay da ngay calcul tey le match passé bu ñu ci dikkaatee à la vingt vingtième minute nous en tant que technicien on préférait à ce que on joue le match nul période boobu on n'a pas besoin de faire des changements di dugal ay jours à apport offensif soxlawuñ ko période boobu Van ni mu lay naxee yow noonu nga koy naxee parce que nax nañu ci ay discours ay kii du jouer comment dirais-je Memphis Depay non kooku il est out pour ce match nekk te le vieux daf ñu doon nelaw loo quoi parce que nee na bi mu ñëwee xool rek dana ko jugal dem échauffement xam ni Depay moo ko mën régler mhm. ñu jóge fa mu jox ñu cër def premier changement milieu terrain ñu yaakaar dafay xaar nekk te ki dugg ki mu dafa jël beneen joueur milieu terrain yóbbu ko offensif kooku ñëw jouer euh, milieu terrain kon cest à am na benn changement tactique bu mu def benn permutation léegi yow boo ko liirul en tant que euh, technicien da nelaw loo ñun période boobu noonu automatiquement on devait entrer un milieu de terrain ñun tamit ça veut dire ce fait dañuy nekk quatre ci digg bi ak deux attaquants bu boobaa on va jouer le match nul par force parce que ñun ébranlé wuñ ñu benn yoon. à mm. part bii am ne c'est de marquage ay ay erreurs que yooyu. parce que dañ ko war a jël rek ñu jël ko mais je pense bien que suñuy joueurs dépassé nañ niveau boobu tey Mendy on a on le meilleur gardien en Afrique mais soo xoolee deux buts yu mu jël yëpp je pense que Mendy dans ses rek du ko jël. benn bi ñëpp xam nañ dafa xaw retard tuuti. parce que man tamit je suis issu d'une d'une famille de gardiens voilà malgré joueur laa woon mais xam naa tuuti ci aw ci wàllum góol. Mhm. mais dafa xaw am tuuti retard. retard boobu moo da koy yóbbu corner ba. mais du ko teg ci camp yi. loolu saa boo ko tegee ci camp yi bii lay ne. effectivement il a commis cette même erreur boo xoolee. bii bi muy def égalisation japonais da ko fa teg rek waa ñëw dóor mu dugg yooyu dañ naan da nga koy pousse corner mais doo ko pousse ci terrain bi léegi kon yooyu yëpp nga xamante ne bi ay erreur yu amoon la ci match passé dañ ci war a am jàngat bu baax a baax a baax ñu bañ mu dal ñu ci match bi match bi tey dañ ko war a entamer avec beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de sérénité concentration dispositif bi Aliou Cissé teg nag moo xam ñëpp nag ñu naan ko sa match tey on a besoin uniquement au milieu deux mille récupérateurs. Ah, donc justement Koudou man foofu laa mhm. comprendre lu tax keroog. Mhm. Aliou Cissé joué ak trois milieux récupérateurs. est-ce que euh, keroog def na ko on n'a pas compris est-ce que tey daf koy changer indi un créateur wala déet. Mhm. man je pense du ko def. te def def bi passé dafa bari ñoo xamante ne bi amuñu compétition seen tànk loolu nag bokk na ci lu ko gën a trahir ci système am. mais ce match pense bien que du parce que ñun ñëpp on attend à ce que mu indi un soit il nous amène Pape Matar Sarr. soit même il décale euh, Crépin jëlee ko ci côté bi indi ko mu jouer meneur. Ah. parce que il faut quelqu'un boo xamante ne bi day day jouer le rôle de serviteur. di passe attaquant yi. di passe attaquant yi voilà suñu suñu suñu problème mooy l'absence de Sadio Mané. Mhm. parce que moom doon am fu muy toll même bu jéewul ci côté bi sax day jouer ci ginnaaw attaquant bi. mais tey on a des joueurs yoo xamante ne bi am nañ profil boobu ay Iliman Ndiaye mun na ko Crépin mun na ko Pape Matar Sarr mun na ko. Mhm. utiliser ñu jéem a à fond. mais man daal dafa am loo xamante ne bii dama ci insisté de trop de trop de trop. Mhm. on ne doit pas jouer ce match uniquement pour le gagner. Mhm. parce match nul da ngay jouer dernière journée. waaw tu encore éliminé. moom moo gën toog tey. Mhm. parce tey bu ñu soppee public bi ne dañoo war a gagner dañoo war a gagner non non erreur boobu je pense pas Aliou du ko parce que match passé c'est sûr que changement yi def bu toogee tranquille dina ne warul woon dugal ay man loolu laa xaw a gis parce que tey bu ñu leen xaaroon tuuti. moom hmm. waa ji bu defee changement yow nga contrecarré ko. Hmm. def beneen changement bu boobaa moom dafay taxaw parce que Van Gaal na woon ci poule bi yëpp. Hmm. s'il parvient à battre le Sénégal ou avoir un point contre le Sénégal day qualifié. te gis nga léegi discours bi génnewaat. yeer nee l'Équateur est mieux organisé, est mieux organisé que, que le Sénégal mhm. dafa muus dafa muus mhm. psychologue la nag ci xelu gars lay dox sa xel lay joué léegi bu la nelaw loowee nag loolu moo lay dugal ci ay ay naka sudul noonu en tout cas daal vraiment nous appelons à surtout donc ce qui veut dire kundul que ni tey Sénégal mhm. avec un point disons yàlla nañ gagné mais avec un point euh, si jamais enfin te loolu mu defe naa su ma waxee aussi yenoon na maanaam mm-hmm. Hollande mën na dóor Équateur mm-hmm. en tout cas euh, moo gën a logique mm-hmm. jouer ji une finale ci troisième match bi moo gën tey di di xaru ba ñàkk bien sûr tey avec un point Équateur trois points la am si su ko enfin j'aime pas nag ci football su ko Hollande dóoree trois points lay am dañuy finale yi ñun ak ñoom euh, dernier match je crois moo gën a logique effectivement mais mais est-ce mu jël risque parce que tamit football tamit risque da cee bokk. yaa ngi wax ci un milieu créatif il faut il faudra tamit. waaw waaw baaxaru mais nga nga nga risque par exemple à l'Équateur c'est une équipe de moyen calibre que les autres. Mm-hmm. Eh, mais ne l'Équateur Qatar. Mm-hmm. donc il faudra nga jël ci say marques pour également montrer say empreintes. Mm-hmm. te confiance boobu ci victoire boobu noonu da lay gën a may confiance man je pense que buñ joué xaw a nul tuuti mun na leen gën a duteeloo. parce qu'ils se disent que devant le Qatar si on parvient pas à gagner alors Équateur bi ko dóor wala mieux organiser te Équateur seen force mooy dëkku ils ont ils retenu en échec le Brésil. bien sûr le Qatar eh nu mu tudd ñoom ñëpp mënuñu leen dóor. Mhm. donc ils sont solides défensivement pour nga bouger seen ligne. Mhm. melul ni Qatar parce que mhm. Qatar seen cinq cinq yi bu koy joué problème mooy ni ki surcharge lay doon ci ñoom ils maîtrisent pas trop alors que ñii tàmm nañ te Équateur ay joueurs yu bëri yu yu am expérience te yàgg nañu yàgg nañ seen biir. Ener Valencia bii dugal nii kañ la kañ nekk ci équipe nationale yàgg na pas aujourd'hui qu'on doit prendre nos risques mm. Aliou Cissé par exemple mu bañ a contenter ci changement yi poste pour poste chaque fois chaque fois loolu la ñu mm-hmm. tàmmal mu andi yenn schéma yi nga xam ne au moins dina jaaxal adversaire nee na changement yi moom moo ko moom moo ko <laughs> xam nga merci Aïdara xam nga par yenn am na match yoo xam ne soo xoolee euh, entraîneurs yi ñoo ko gagné mm. comme le marché de Japon Japon mm. voilà si vous avez bien suivi la effectivement moo gagné match bi parce que démarré nañ mu xam ne lii ébranlé wul euh, Allemagne mm-hmm. mu gérer ba mi mu def changement yi bu ngeen xoolee bi muy génnee Chaka beaucoup de gens disaient que kii nan lay attaquer Allemagne te Allemagne mën la 1-0 nga génnee Chaka. Mhm. fekk alors que daf doon dugal benn jour boo xamante ne bii au moins dina ko amal benn apport offensif. Mhm. lu gën lu Chaka doon def. Mhm. xam nga dafa am entraîneur yoo xam duñ joué ci tour mhm. waaw Chaka moo nekk ay Marseille moo nekk am entraîneur yoo xam ne. xooluñu te ba pare takku Minamino bi jaar Liverpool. mu teg ko banc bi mu teg ko ci banc bi bu deuxième mi-temps voilà di parce que Pansaïd fi ngay toll bi amoo temps booy xaar dafa gaaw. Mm. dafa jël ay risques. Mm-hmm. mais ci biir risques yooyu boo xoolee aussi. vraiment les les, les japonais risques. parce que après le match maa ngi suivre euh, ñiy décortiquer match bi. ñu ngi naan moom danaan la tactiquement. Mhm. boo defee benn défense il te met so il te met doom. oh c'est comme c'est comme euh, Hervé Renard loolu la imposé saoudiens yi mu ne la tu fais une erreur je te sors. bul sonn et tu es out pour la con la la la compétition. parce que wax nga dëgg donc tu restes concentré. waaw tu restes forcément parce que il faut nga concentré aussi. parce que su ñun surtout ñun africains ñun loolu suñu problème la. yaa ngi doog a laal problème nag. problème africain c' la concentration. regarde match yu ñu joué yëpp boog. Mm. tu te ni vraiment on n' a pas le droit de perdre. Mm. Mm. Ghana démb ce match là tu le perds pas. effectivement effectivement. match bu bis. te pare te ba pare à 3-3 ils pouvaient revenir à 3-3 mais équation bu ñu leen may fin bi. gardien gardien bi may leen nga nekk fii ñu ñu kiyal ñu ñu. ñu kii bi ñu jël Sénégal Hollande suñ premier bi problème concentration la. effectivement problème ñëpp ngi naan. en un moment. Mhm. Hollandais dem nañ ba xam ni axial duñ dugal. Mhm. boo xoolee après ils ont joué sur la largeur. oui indi ay centre di indi ay centre mhm. mais man lu ma mënta d' accord mooy le moment où on donnait le ballon à De Jong amul benn Sénégalais. très bien bu ko jegee voilà. il était à 10 mètres ko gën a jege. oui kenn mu jëm. il avait le temps léegi attaquant bi dugal bal bi moom xoolal fi mu jugee. ci côté la jugee daw ci diggante. arrière gauche bi ak Pape Abou Cissé. Mhm. mbëkk bal mu dugg malgré Mendy def na benn retard. te c'est un lépp dañ naan la problème mu concentration Africain qui a tué ses ses frères. bien sûr <laughs> d'origine ivoirienne. ivoirienne <laughs> voilà. Hmm. démb aussi yaa ngi koy wax ci gana gana Ghana de premier bii bi d'accord du penalty. Hmm. mais deuxième bi gis nga seen défenseur bi. oui loolu ñi ma ko def en club. Hmm. ñu passe bal derrière ton dos. waaw ah. sa sa tànk yi lañ ko passe. du yoon soit dañ naan la bu nekkee yaa ngi nekk en course. noonu lañu ko jàngale hmm. soo da nga nekk course bal bi ñu passe ko sa dos bul arrêté bal bi laisse la ballon continuer yow après nga dem daaxee ji hmm. Hmm. munoo ko kale. boo ko kalee da lay déjà balaa ngay nekkee te alors que kay il était il doo ko def doo ko def waaw. le troisième but vous avez vu c'est Jordan qui avait perdu la balle. parce que dugg na moom tamit xam naa peut un peu frustré. en tant remplaçant dugg bëgg a wane wu. perte bal ñu dugal leen. moo tax gis nga après bi dafa perte bal bi rek góol bi après daf ko anglais. voilà léegi léegi l' de l' équipe nationale. c' est trop chargé. Mhm. déjà ñu gis ni maa ngi gis ni France depuis euh, kii bi commencé léegi. Mhm. visite parentale démb lañ ko. accordé autorisé pour mhm. jour yi ñëw pour quelque xama du mhm. quoi cinq minutes à dix minutes ñu gis seen parents yi rek ñibbi mhm. loolu c'est des c'est tout le monde sait que parents day motiver alors que ñun autour de l'équipe nationale dem ba gis ne le ministre qui vient ñun kay comme ku nekk sommet Nations Unies quoi délégation délégation yi di waxtaan est-ce que environnement yi moom mooy dul embrouillé tamit joueur en tant que professionnel en tant que yéen a ngi nekk ci yóbbu. yooyu yëpp yooyu yëpp ñu ngi fa yooyu yëpp ñu ngi fa. te ñoom ñooy bàyyi ñuy chargé wu noonu c'est est-ce ñu gàllankoor tamit. xam nga ay dara parfois. Euh, gis nga xëy na ñun sénégalais ñun ñoo fonkul environnement. Mm-hmm. mais gis nga footballeur li mu gën a soxla environnement ci la bokk. Mm-hmm. parce que gis nga concentration bi ñuy wax su bi baaxul rek du jàll. Mm-hmm. xam nga man tey j'ai eu la chance j'ai été jour. maa ngi doon capitaine du GFC de 2009 à 2014. avant may dem Chypre di rejoindre Bouna mais football bu nekkee ni environnement bi ngay nekk seenu munoo performant ñun on n'a pas besoin ay message yu ministre rek ay message ay audio ak regarde tey ñi dem Qatar y a de gens yu mérité woon dem ñu bàyyi leen billaahi dangay am sa dix personnes yi ñu la may nga yóbbu ay bugguma sax tudd leneen ñu mérité wul def. defuñ fa dara loolu kay loolu kay euh, kundul. waaw ñëw rek dinañ ci waxtaana ah. <laughs> non yàlla yàgg foofu. <laughs> yàlla nañu fa mais bu ñëwee maa ci xam lu bari. non c' est yóbbu yóbbu ñëw rek je me pose ñii qu'est-ce qu'ils font là-bas effectivement defuñu fa dara. tey normalement waroon nañu yóbbu tey loo xamante ne bi da xam ne ñii dañoo dem au moins duñ ne dañuy dem pour gagner coupe du monde mais au moins pour représenter dignement le Sénégal. pour représenter dignement l'Afrique tey Sénégal war nañ mun a nekk foo xamante ne bi jour yi bu ñu bu ñu bu ñu gisee supporters yi stade la du ay dirigeant du ay message on n'a pas besoin de ça xam ñun lu ñu soxla Aliou Cissé mi yàlla nattu tey mu nekk ci bopp sélection bi ñu ñu ñu gën ko ñaaxaat gën ko encouragé waat. Mhm. parce que xale bi dafa bari. Hmm. Koundoul man est-ce que du ñun dañu dañu dañu yor ay joueurs professionnels. qui jouent dans les plus grands clubs du monde. ba pare ñun ñu lànk ne duñ nekk ay professionnels. c'est ça voilà. gis nga soo xoolee waxuma sax xam nga yaa ngi wax ne GFC ensuite nga dem Chypre. Mhm. mais nawetaan nawetaan fii ci Sénégal. xam nañ ne bu ñu amee match équipe bi dañ koy jël yóbbu ko ci benn kër. en tout cas ñun suñu dëkk yi noonu lañ def. kër bu kenn dëkkul jusqu'à présent jusqu'à présent kenn du gis joueur yi tant que stade. pourquoi parce que dañu soxla concentration. yow nga yóbbu équipe nationale Sénégal. tu vois des joueurs qui jouent à Chelsea euh, Bayern de Munich je ne sais pas moi yeneen ak yeneen ak nga yóbbu leen Qatar man man damay man je regarde ba mondial commencé ba léegi football bi rek laay seetaan. gisuma benn équipe nationale boo xam ne da nga leen gis en dehors des images de l' équipe en dehors de l' entraînement. effectivement France gii nga xam ne moom la wax souvent ñun bu ñuy cité parce que suñu référence la ci domaine boobu. France seen turu ministre des sports sax pour nga xam ko problème la. est ce xam nga lu xam ko sax xam nga xëy ngay dégg ministre France des sports wa wax. ñu am problème ci ay affaire racisme ak ay affaire respect xaw ma droit ak naa mu génn exprimer mais doo xam kuy ministre ba. football Noël Le Gret Noël Le Gret c'est le seul ngay gis muy wax ak Deschamps. tu connais même pas les autres membres de la fédération. Sénégal fii man kenn mënu ma expliquer lan moo tax bu Sénégal dee dem compétition non loolu sax du sujet léegi nañ bàyyi ba ñëw on amène toute la fédération sénégalaise de football. Père Diop Cheikh Tidiane chaque jour. mais loolu tey comme tey match lañu am kundul. te dañoo bëgg a gagné yàlla nañ gagné. amiin te ñu yàgg Qatar. mais bu ñibbisee dinañ toogaat fii ñu waxtaan ci. c' est vraiment. mais c' est c' est vraiment oh, extraordinaire une équipe ne peut pas se concentrer dans man période boobu noonu. Euh, man damay jël sama propre responsabilité en tant que sélectionneur. Mhm. écarté ñëpp. bunkeriser kii bi. waaw ku ma mere garaawul xam nga lu am solo.

il faut oser le dire. c'est de la politique. politique dañuy ñëw sol maillot ma ñëw taxaw ak ay dara yow yaay yow yaay vedette bi yow la ñuy xaar. Mm-hmm. ma bëgg sinab wala dara wala ni ñëwoon naa pour encourager ay dara te te te ba pare lu ma jaaxal sax dès le début sax ñoom ñuy xëccoo eh, un vice président. un président du, du football amateur. Voilà, euh, deuxième Mais comment peux-tu comprendre que Sénégal on entend plus le ministre des que, la, que le président de la fédération. effectivement te moom moom il est. très discret te bu ñu ko ci moom kese moom Augustin kese hmm. y aura pas tous ces problèmes mais lan moom il est entouré déjà des des des vice présidents politiciens ci biir loolu boo ko waaye Augustin malgré il est maire de Gorée. waaw yooyu mais moom il est discret dans que maintenant le sport ay Djibril Wade également des vice présidents yi nga xam ne ci la ñuy nekk di def ñoom ñooy andi brouille yi fu fu nekk rek ils veulent ils effacent après nga l'occasion se présentera mais délégation bi dem Qatar yaa ñu ngi wax sax yaa à manger à boire yaa yaa yaa à manger à boire maintenant maintenant léegi ba yegg ca est-ce que est-ce que léegi yow gëm nga ni en amee conscience que ni tey mun nañ cee génn bien sûr tey mun nañ cee génn comme euh, ni ñu ko yaakaaree parce que comme ni ko Cheikh Tidiane waxee euh, entraînement séance su démb bi huis clos la def. Mhm. peut-être kenn am aperçu. ci mhm. équipe nu muy joué. mais je pense bien que seetaan na africains yi. Mhm. man surtout les marocains. les marocains étaient très disciplinés tactiquement. seen match passé vraiment ils ont subi mais amul ku lâché. amul ku lâché yaakaar naa ñun tamit war nañ mën a def ci match yooyu noonu. tunisiens yi tamit également même chose. tey malgré comme comme erreur Ghanéen erreur lañ def rek. Hmm. mais il n'aurait pas du du. perdre sa te pourtant sooy jël équipe par équipe Sénégal ñoo ëpp doole Tunisie. bokkul effectivement jël joueur par joueur je veux d'accord le Cameroun ñëw na mondial ak yëpp mais qu'est-ce qu'il a dit bon le Sénégal normalement moom moo war a représenter Afrique dignement. bien sûr dignement effectivement parce que nangu na ko ñoo fi am mm-hmm. parfois aussi ni nga mel Oudé nu mu la gisee la lay ëwalee. comprendre mais est-ce que tiit kon bu fekkee ne coaching. Mm-hmm. la xalaat ne moom moo war a gagner mm-hmm. gagner tey est ce que duñu tiit ci Aliou Cissé bu ñu ko mm. xamee ne côté coaching bi tamit dafa bari luñ ko ci ŋàññi. xam nga Thioro parfois li nga wax dëgg la mais on a aussi des joueurs yoo xamante ne bi ils sont assez d' expérience. effectivement parfois mooy li ma la wax rek joué naa xam naa li may wax am na fu muy toll entraîneur bi yow yaa koy noppal. Mm. yow da ngay noppal entraîneur bi c' est pour rien yenn entraîneurs yi di di di di seen équipe ñu ciy wut benn mag boo xoolee. Mm. mag boobu dañ koy soxla par exemple la Uruguay boo ko seetaanee. waaw guddi moomu ñu yóbbu sama la. mais dañ ko yóbbu juste pour mu nekk benn genre entraîneur dans le terrain. comme ni ko Deschamps doon defalee Aimé Jacquet. effectivement nekkee entraîneur mu France. ñun on a Sénégal on a ces joueurs là on a des Kalidou Koulibaly on a des Idrissa Gana Gueye ci terrain bi dañuy waxtaan da ngay toog ba saa ne gars yi match bi nii lañ koy joué. Mhm. l' du entraîneur du mer loolu ñun ay entraîneur duñ mer ci loolu. joueur bi di la dimbali ci yenn yi taxaw gis tey bu ñu leen may fu ñu yekkee seen nàkk bu ñu yoree bal bi ci kaw nga leen di jël parce que ils sont cinq derrière. soo xoolee un Thiago Silva à trente huit ans. effectivement ça veut dire que presque un c'est un entraîneur sur le terrain. effectivement il déjà déclaration mu ne il se sent mieux. c'est le meilleur Thiago Silva voilà c'est le meilleur Thiago Silva. bien sûr donc c'est un leader. moom moom di wax moom c'est un leader équipe bu mu dem moom leader. c'est que xam est-ce tamit Koundoul foogoo ni tamit. on s'était trop reposé sur Demba on faisait ce débat mm-hmm. on nous dit que il n'est pas il n'est pas en forme il n'est pas dans son mm-hmm. assiette mm-hmm. yow xam nga lu esprit état est-ce que également Edouard a eu son sa chance ka bi kii blessé nu mu Alfred Gomis mu ñëwee toj est-ce que Edouard en ce moment mieux pour l'aider il faut pas que gardien yu nekk parce que lii compétence ça va vite on donne à Seny qui performant qui nous a donné satisfaction ci Coupe d'Afrique noonu bi bi bi bi nii. waaw effectivement Séni il est très xam nga Séni vraiment mu ngi ci mais mais dafa am ay postes yoo xam ne ay dara dafa xaw a sensible. Ah, laa doon bëgg yooyu souvent waaw dafa xaw a risque tuuti rek quoi. Mm. dafa sensible peut-être premier match la compétition voilà. Mm. premier match xam bu doon premier match la. Mm. dina ko ñemee def comme Kaan moo góol deux premiers matchs yi. effectivement mais après le titulaire s'il rek. dañ dafay dafay góolu ñun dañu am benn problème Afrique. te loolu FIFA moo ñu si dimbaliwul. Hmm. ñun waroon nañu am au moins coro ay matchs amicaux avant mondial. Hmm. Hmm. waaw surtout. pourtant y a des Africains qui ñu ko joué de ñun suñu programme. ñun ñoo ko joué moom moo moo moo saturé ba ba xaju ci. benn date lañ ci xalaatoon mais boobu bon comme Aliou aussi comme la wax c'est lui qui détient le dernier mot on, on très bien c'est lui qui a il a euh, il a il a moom moo bëggul jouer ah. entre temps. Ah. bu ci xeejee parce que euh, du 11 la am nañ président 10 10 mat 10 euh, jours de préparation onze jours oh. sax mu laa mën a wax oh. mais Ghana Eh, kii nu mu tudd eh, Cameroun si joué na ak Panama. Mhm. Eh, nu mu tudd Maroc na fa est que du ñaar sax la joué fa. Mhm. Tunisie ñoom ñëpp am nañ match amicaux. non France sax joué na fekk Cameroun ah mais ñoom ñëpp africain yi club yi ñii dem mondial ñoom ñëpp am nañ match amical. Mhm. ñun ñu ñun kese ñun kese ñoo ko amul Aliou Cissé a préféré ça peut-être on peut comprendre que mais man erreur bi mooy ni bi mu dekk xamee ni Sadio blessé na. ci la war force forcer am match match amical. surtout ne xaaral ma essayé benn système sans Mané. système sans Mané. sans Mané loolu mën na la jox. wala parce que on a pratiquement jamais joué sans bi statistique mooy ne Aliou Cissé avec ses quatre vingt les quatre vingt deux. Hmm. matchs yi mu joué à la tête de l' équipe nationale. Hmm. moo boo xoolee Sadio n'a pas joué treize matchs. Hmm. lii mooy quatorzième match quatorzième match. quatorzième trois défaites. huit huit victoires. mais allez savoir c' pas dans les grandes compétitions. toujours Sadio était là. les grandes compétitions moo tax on a eu peu de peu de défaites boo xoolee. xoolee match officiel Sénégal naa yu ko quatre mhm. boo xoolee parce que contre Cameroun bu nekk cinquième tiro bi la te tiro bi on comptabilise pas euh, comme que une défaite mhm. moo tax quatre défaites la am mais tout ça c'est avec Sadio avec Sadio avec Sadio on joue pas sans Sadio te loolu noonu boo tamee loolu c'est difficile c'est pour ça l'Argentine sans Messi wala un Barça sans Messi ça pose problème parce que tout repose sur yooyu Ronaldo Real sans Ronaldo c'est c'est des problèmes mhm. mais nga nga jouer équipe nga ñi ngi ko doon demee Benzema blessé na. Mm. titulaire mais Benzema léegi wax nañ ci tuuti pare nañ ci. Giroud est là il fait le job le un Pogba n'est pas là mm. un Kanté mm. ñan la ñu bëri nañ précision sept blessés mais feeñul. mu ngi nii Deschamps. Ah, parce que l'avantage nag bi Deschamps am sur euh, Aliou Cissé c'est que d'abord euh, France le vivier dafa dafa dafa dafa ñoo bëri ay joueurs ils sont nombreux. beneen bi mooy je ne sais pas boo xam El Khayri yaa ngi koy seetlu ak Koundoul. Mhm. mooy Deschamps il essaie beaucoup. Ah, bien sûr il beaucoup beaucoup beaucoup. tey euh, Benzema blessé du ko perturber moom dans sa préparation. Mhm. Pogba blessé du ko perturber dans parce que il mhm. essaie. il essaie il essaie mais Aliou Cissé j'ai l'impression que dafa am ay certitudes yoo xam ne moom lay demee depuis la CAN. donc bu ci benn pièce jógee rek. c'est ça xoolal cas de Varane. voilà Varane première journée. voilà incertain. incertain pour noppal français yi mun leen il va pas jouer. il va pas mm. am benn Konaté muy jouer Liverpool. Mm. mu am benn Upamecano muy jouer Bayern. ngay jouer loolu benn jour Manchester kese la ne. waaw Manchester te Manchester n'est pas ñu jouer xoolal ñu ngi français yi Varane opération opérationnel euh, na pour jouer esprit Deschamps. mais Deschamps li def xam na ko bu baax. mais ñun tamit li li li grand bi wax. xam nga Aliou dafa am benn boo xam ni. moom dafa jàpp ne noyau boobu kese kese moo ko mën a yóbbu fi mu jëm. mooy ban mooy li muy géeloo. Mhm. soo xoolee bu ci kenn génne. mooy Kouyaté euh, Koulibaly ah, Gana Sadio. chaîne la chaîne bi boo xoolee lu mu métti métti métti métti chaîne bi ñooñu ñooy joué. Mhm. léegi nag man su nekkee chaîne bi nag am naa gàllankoor bu ma dal ki ci gën a génn moom mooy la star de l' mhm. mais damay wuti match amical coro. may wut benn match amical au moins. ma jéem a teg benn système boo xam ne sans moom la. bu boobaa dina ma permettre. bu ma sax joué pour gagner ko mais ma utiliser joueur yëpp. ci ci tu as ko may chance bi ñuy dem Coupe d'Afrique on a joué avec le Nigeria. Ah. Nigeria mais suñ camp d'entraînement centre bu ñuy entraîner. Mm-hmm. foofu lañ joué match amical. Mm-hmm. mais ça lui a permis victoire boobu mu am ci kii mm-hmm. bi sax. réglé na Nigeria 1-0 bu Ghana di dugal moom changé na ci defar na ci lu bëri. kon loolu looloo ko gàllankoor mu ñëw andi. ko andi on n'a pas appris à effectivement c'est ce qui tey ji rek ci équipe nationale bu Sénégal ak euh, ni ki tey jii hmm. bi war a dox ci digganteem ak Qatar ni ki 13 hmm. euh, ba tey parce que ba tey waxtu bi dinañu ko may bëggoon naa aussi ñu hmm. dugg ci 11 Aliou Cissé euh, loo xam ne ni tey ji bi nga xam la ñu war a sa sa 11 probable sa <laughs> moo tax tey jii boo waree jàkkaarloo ak Qatar lii ngay teg lii ngay teg par rapport ak effectif bi nga xam ne moom la Aliou Cissé yor actuellement bon je ñu ngi dégg ñu ne Abdou Diallo maintenant il est il est est il est prêt il est opérationnel dina mën jouer euh, moom moom défense am xam naa ne Abdou Diallo s'il est mhm. euh, comme keroog euh, Jacob joué na à da koy da koy da koy delloo si waat dans l'axe parce que quoi quoi qu'on puisse dire aussi formé na benn paire paire axe central bu dox moo Koulibaly. Hmm. moo ëpp concentration. waaw moo ëpp concentration que hmm. te xam naa ni loolu lay préparé peut on va on va remettre la même paire. après ñu indi Jacob peut-être Sabaly aussi vraiment le match passé il a fait un excellent match. Mm -hmm. après c'est au niveau du milieu que Aliou Cissé war a décider foofu. Mhm. honnêtement. il faudra décider il faudra parce que tey milieu terrain muy def c'est sûr que 3 lay nekk. xam nga yi ñooy changer ay 4 2 3 1 4 1 1 2 yooyu mais 4 3 3 classique la tudd rek mais dañ koy toj rek chaque fois. Mhm. mais du coup dafay am triangle bi am. Mhm. triangle bi ngay am ñun tey on a besoin de quelqu'un juste devant la défense. pour nu faire sortir les ballons. te ça moom vraiment on a un Nampalys Mendy. Mhm. léegi du coup base bi dafay nekk ci kaw. sommet bi mhm. mooy nekk ci suuf gis nga ci kaw. par exemple euh, Idi moom c'est c'est son pion essentiel da koy joué loo. il faut un animateur. waaw totem la ni ko gars yi di waxee. <laughs> jouram la aussi parce que yàgg nañ ñoom ñaar. Mhm. mais il nous faut un animateur man je pense que si j'étais à sa place man je vais mettre euh, Nampalys Idrissa Gana Gueye et je hmm. faut aussi. Crépin je ne fais du ma ko joué loo ci côté bi. ma koy indi ci ginnaaw. de ce fait mun nañ am Idi euh, Nampalis Idi Crépin wala Nampalis Idi Pape Matar. d'accord ñoo la ñuy def su fekkee dans les côtés on aura un Ismaïla Sarr avec sa vivacité. on a un Iliman Ndiaye et, et en pointe on va on reconduire Boulaye Boulaye Dia parce que Boulaye bi ñu koy génnee bi passé man mm. j'étais tellement étonné. oui dans son match. et puis on a fait un changement pour faire un changement on Bamba Dieng il n'a pas de est-ce que c'est six matchs yu mat sax Marseille avant muy ñëw coupe du monde. remplaçant voilà voilà on le comprend c'est un tueur mais aussi compétition bu nekkul say tànk aussi li nga bëgg a def mënul mënul nekk. di nga bëgg mais du nekk ci tànk yi. loolu aussi loolu moo ko jàpp même Kouyaté mi blessé aussi niveau boobu noonu gën na ko joué. te ba pare te ba pare foofu sa importance mooy. Mm-hmm. Crépin ou Ilimane euh, comme neuf et demi. Mm-hmm. ils ont plus d' automatisme. parce que mm-hmm. seen euh, esprit créativité. dina ko voilà voilà ak Ismaïla Sarr. disons bii Bamba bu muy dugg. Mhm. il n'était pas en forme bi Ismaïla Sarr joxee ko pour une deux. une bi voilà tu as vu tu as vu voilà moom dafa yuuxu ci kawam sax fii nga ma ko waroon jox. Mhm. sinon mais nag un dix par exemple un un créateur. moom boo ko joxee loolu loolu lay njëkk xalaat ko mhm. dóor ak kii yooyu noonu. bu demee ba sës lee xam ne fii nii mënumaa paas. mu doog a dóor mais un Crépin derrière Ismaïla. dina permettre mu koy defal ay combinaison te Ismaïla il est rapide il pour a def ay profondeur am s'il peut c'est des serviteurs. man meneur meneur noonu laa koy tuddee toujours c'est des mm-hmm. serviteurs. Mm-hmm. Mm-hmm. lu ñu leen sant mooy donner de bons ballons aux attaquants. que ñu ngi koy dugal que dugaluñ ko yéen loolu seen yoon nekku si. jox la leen bal yu baax ñoom ñu concentré wu defal ñu ce qu'on appelle les bonnes finitions mais tey aussi dafa am ñaari aspects yi am ci match bi tey. quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. tey quand on a le ballon on doit être serein. faire une bonne circulation la balle. di ko jouer utiliser les côté yi boo xoolee ñoom bëgguñu ko. joueur Qatar yi. gis nga deux bi yu ñu ci jël premier mi-temps deuxième mi-temps boo xoolee dañoo ñëw compenser foofu tëj parce que xam nañu sinon bal yëpp fa lay jugee. ñun nañu garder bal bi on a des joueurs assez techniques. ñu mun téye bal bi surtout li ñu wax ni li lañ bëgg mu jouer. quand on a ñu garder def ce qu'on appelle des attaques placées conservation déséquilibre finition centre yooyu yëpp ñu ñu ñu dugal ko ci biir mais nag après quand on n'a pas mooy deuxième bii bi ñu jël. contre Hollande y a des gens yoo xam dañ doon tergiverser ci ginnaaw pour dugg ci bloc bi contrairement xool ko nu ko marocains yi doon def bu leen Croatie di attaqué wala xool ko nu ko japonais yi doon def bu leen allemand yi di def kër ga buy tàkk doo ne di wut luus pour sotti ndox da ngay da wuti ay paan ak soo di daw du dëgg waaw di voilà du soot bu sedd da ngay daw ñu xam ne kër gaa ngay tàkk nga daw mais bu nekk aussi damay daw rek dugg na après ñu tàccuñ defaraat c'est le maillot national nous sommes des patriotes maillot bi dañ ko war a sol carrément